bés bi bésu diine la bésu ziarante la bésu bàllante àq la moo tax maa ngi bàllu ñëpp àq te di jégal ñépp di ñaan suñu borom mu boole ñu bal ñu àq te itam jàppale ñu ci jàmm ci réew mi jàppale ñu it ci suñu yitte ñun ñëpp yalla wacce fi ran nawet bu barkel xel yi tiit nañu waaye nag gis nañu sunu borom am bu tardé mën nañu may nawet bu baax kon li may ñaan rek mooy na ñëpp wëlbatiku talal ko ay loxo ngir mu may ñu nawet bu nawet bu ñëwee tam ñu murloo ko tous ñu mbokk béykat yi maa ngi nuyu kilifa diine yi di leen ziara xalif généraux yi borom daara yi képp koo xamante ne njiit la ci wàllu diine waaye ci wàllu aada ak képp kuy doomu réew mi maa ngi lay nuyu di la siyaara ci bés bii di bésu tabaski di bés bu màgg eh, di ñaanal itam ñi nga xam ne dañu am feebar yàlla yëkkati leen ci jàmm ñu am ay xat-xat suñu borom it jàppale leen te it réew mi ñu continuer di di ko liggéey ngir njëriñu askan wi ëllëg njëriñu suñuy doom ah, ngir aveniru u Sénégal lépp nag ci kaw jàmm stabilité ak prospérité maa ngi ñaan it foofu laay jeexale réew mi yëpp taxaw ci woote bii ma woote ñu jëmale ko ci lépp luy yokk sell ak set setu réew mi ndax mbiru nit ñi la war a doon mbiru askan wi la war a doon du rek mbiru état waaye kenn ku ne moo xam maire la moo xam conseil municipal wala imam wala borom daara wala borom yi ASC muy jeunesse bi muy groupement jigéen ñi mbootaay yi na ñëpp fexe ba seen i gox ak seen i gox-goxaat ñu taxaw ci seetal ko sellal ko ci loolu la wér yaram mën a amee ci loolu it la jàmm mën a amee dëgg-dëgg kon euh, lu ci war ñun danañ ko def ci wàllu état bi waaye nag mbir mi du mën a sotti mu lu dul nit ñi ñoo ko aakimoo def ko seen yëfu bopp kon nag nañu fexe rek ba suñu réew fii ak weer bokk ci réew yi ñuy cité